ok Boo jaw kan mooy Boo Diaw ah Boo Diaw benn artiste la boo xam ne am ci banlieue bi la juddoo Sénégal màggee Sénégal Dakar yaroo fa am chance su def nag un peu quelques voyages euh, pour jéem a yaatal son répertoire musical ba tey peut-être xëy na ma am euh, benn genre direction artistique bi di mën a def pop music di mën a def reggae di mën a def dancehall di mën a def aussi euh, toute sort de musique bi nga xam ne man sentir naa ko feeling mais euh, doomu Pikine la doomu Sénégal la mais dëkk fii ci dëkk bu ñu naan Canada depuis like euh, more than ten years all le parcours euh, musical de Bodiao. En fait, euh, moi, je peux dire que je suis quelqu'un qui, qui, beaucoup la recherche et la créativité. Donc, du coup, quand j'ai eu la chance de commencer à voyager, euh, de Moubougouan c'est quoi la musique que font les Jamaïcains. Je parti en Jamaïque trois fois. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer les fils de Bob Marley, Kay Polton, euh, Sizzla Kalanja. Et then, euh, si je euh, Luciano, def premier partem, opening act, c'est là que Luciano ñëw na Sénégal a lot of time ba moom sa xaritu Baaba mal la expliqué ma suñu culture xam na ci lu bëree bëri donc je voulais savoir un peu euh, la direction artistique des Jamaïcains reggae dancehall et aujourd'hui ça m'a beaucoup apporté après ça avant ça j'étais parti à Cuba Varadero j'ai fait la Havana pour xam aussi leur culture jóge fa aussi euh, Brésil j'ai beaucoup aimé parce que bi ma nekkee xale dama bëggoon la capoeira et c'est là j'ai découvert que ni capoeira sunu maam yi ñoo ko créé et Angola la jógee donc euh, cela m'a donné un peu aujourd'hui quelque chose boo xamante ni mën naa ne mën naa ko tënk en grosso modo de ce que fait Bodiaw muy afrobeat folk euh, world music euh, pop music incha allah mon année, c'est euh, sur mon mooy Et j'ai fait quand même pas mal de festivals ici à Montréal et un peu partout ailleurs. pas mal d'artistes internationaux. Um, wow, wow, wow, Akon, Akon, to my brother Akon, Akon, must love. Um, je respecte beaucoup Akon. Hein? Akon, il a mon respect parce que he build his own empire. te tey bu ma déggee euh, journaliste yi naan peut-être damay dépasser Akon wala loolu dama koy jël comme privilège rek compliment la parce que xëy na ah, euh, journaliste yi dañuy bëgg ñu am yeneen Akon dañu bëgg ñu am yeneen Akon ba pare dem fu Akon demul sax at least so but we can do better than Akon incha allah ñun dañuy dem foo xam ne Akon demu fa we don't want bi be Akon dañu dañu man boo jaw laa te euh, incha allah dinañ def loo xam ne sax Akon defagu ko right mais euh, shout out to my mu ngi def liggéey bu nice euh, ñu ne ñu ngi suñu yoon xam nañ suñu bopp xam nañ ki ñu doon te incha allah can handle it respect dima bun di marayi jàpp do bay di ma muñal de doo tay <laughs> sama gars yi yéen mooy bëmbax de Adji Ouza Adji Ouza Adji Ouza c'est ma sœur c'est une sœur boo xamante ni je la respecte beaucoup bon peut-être euh, sunu photo vidéo ñi nekkoon en 2014 2015 la peut-être la nit ñi gis yaakaar ne y a une relation a ah, mais non non non euh, rien de de spécial entre nous sama xarit la sama jigéen la ba pare nit ku mën li muy def la bëgg lu muy def am na fulla respecté na boppam elle est bu ñu fàtte loolu ba pare Ouja Ouza mooy papam donc euh, bon euh, what else loolu leen bëgg ma wax nañ bàyyi noonu rek aji sama sœur la loolu dara xew fa alors jëf waaw Ndeye Ndiaye Banaya waaw tey posé nga ma question bu ma neex parce que kooku suma doom la Ndeye Ndiaye Banaya man papam laa bi ma ko papam di déjee naan maay baayam boobu Ndeye Ndiaye xamaguñ ko sax euh, papam di sama xarit ñu naan ko si Sissoko mu bokk famille bu baax je répète Ndeye Ndiaye Banaya man maay papam te Ndeye Ndiaye Banaya famille bu baax la bokk ay baayam ak ndeyam ndeyam moo gën ci yaay elle a une mam elle a elle a maman extraordinaire donc nit ki nag jaar-jaar dafa am ak aussi tombé ci jamono boo xam ne yàqante dafa xew di wane mais ñun ñëpp am na lu ñuy nëbbu donc tey bu ñu feeñaloon li nga xamante ni tey euh, moo nekk ci kanam wala lu ñuy nëbbu euh, dina doy waar de noonu la demee mais kooku suma doom la waaw xam nga rek gars yi moom lu ne neex la ñuy inventé dañuy wax rek. mais y' a pas de kooku suma doom la te ku baax a ngi noonu ku am yoonam te incha allah day dem ca kanam elle a beaucoup talent xam na ku mu doon te ndeyam liggéey na ko kër baayam all right. sama relation ak DJ Awadi ah kooku vieux père la Awadi Awadi suma xarit la c'est mon mentor aussi. Euh, nit ku baax koo xam ne il fait beaucoup de choses dans l'ombre boolewul la dara ak ay wax yu bari kat xam ki mu doon xam fi mu bokk donc suma xarit la suma grand frère la et on a beaucoup collaboré ensemble e toujours c'est un plaisir parce que man dama ko yàgg déglu yàgg ko respecté donc tey c'est un honneur un chance di partager ak moom yeah je très très content pour ça euh, Numukunda Sissoko grand nu mu sama xarit un artiste aussi hors pair un artiste hors pair naan ko nu mu Kounda Sissoko mu am talant mën lu muy ba pare garde la culture qui est un patrimoine pour nous donc respect nu mu Kounda on a beaucoup de projets ensemble récemment mu ngi fi woon def nañ ay yu bëree bëri yoo xam ne et on a tournée aussi dinañ ko accomplir sous victoire Youssou Ndour est-ce que y a roi du mbalax waaw loolu question boobu moom moom moom roi du mbalax beneen juddagul Sénégal ah non non non y en a pas encore Youssou Ndour c'est une légende et ñun dañoo am problème en tant que africain ñun dañuy dañuy tabax dara après ñun ñoo yàkkamti toj ko Youssou Ndour légende la Youssou Ndour li ko yàlla may jéggi na àdduna te bala ko koy xam nga génn à l'extérieur du pays donc y a photo à Youssou Ndour pour le moment sama rakk yi dama leen di encouragé ne leen nañ continuer job ñu ngi def lu rafet mais nañu liggéey bu baax parce que à part Youssou Ndour gisaguma fi beneen beneen beneen artiste bu ñu tu wooyee roi du mbalax yeah 100 percent to be honest yeah ku ñuulul danga xees ku gàttul danga ñool ku ñuulul danga xees ku gàttul danga ñool di ma toppatoo man di ma lu may conseiller les jeunes artistes sénégalais waa di leen ne nañ bokk ndey bokk baay ñu ngi liggéey liggéey bu rafet mais y a trop d'hypocrite au pays le milieu artistique surtout suma frères yi ñoom ñi nga xam ne tey game seen loxo la nekk le taux d'hypocrisie est très élevé te musique mënoo koy def ba pare hypocrite parce que li nekk sa xol nga war a génne mu nekk lu naturel euh, la musique c'est pas une compétition c'est une passion donc mënuñu nekkante di reetaanante di deflante jàmm alors que en arrière de tout ça c'est le bordel dañuy liggéeyante di defante lu bon c'est dégueulasse donc man mënu ma nekk fu ma dem di tiitaroo Sénégal alors que say mbokk sénégalais artistes yi war a bokk nday bokk baay jàppalante parce que ku ci am ndam rek Sénégal la ñuy la ñuy nii ak Afrique donc il faut que les gens le savent après affaire bi géej la dafa yaatu ñëpp ci mën a béy seen waar am ci jàmm mais nañu wàññi seen côté hypocrite bi parce que ils sont trop hypocrites les artistes sénégalais africains même innocent dima toppatoo man dima toppatoo man dima toppatoo man ba man woo naa la neex nga ma woo naa la jigéenu Sénégal Wally Seck euh, Wally c'est un petit frère hein c'est un petit frère et artiste que je, respecte beaucoup il fait son chemin mu ngi def lu rafet mais di ne ko mu góorgóorlu gën a liggéey te bañ a déglu ñu naan ko yaa fi nekk c'est toi le meilleur mu jàpp ne xamul dara mu ngi jàng chaque jour te moytu ñuy koy jay di ko nit da nga koy encouragé mais di ko wax dëgg da nga koy encouragé fii kenn mënu fi dara te ku yaakaar ne mun nga xam nga ne yow boo tëddee nelaw xam nga ne mënoo dara donc c'est un jeune qui a du courage qui a du talent nañ ko jàppale suñu rakk la mu nekk ci yoonam ba pare encouragé ko mu xam ni defagu fi dara mënagul dara continuer de liggéey parce que j'aime beaucoup les gens qui bossent euh, te lépp liggéey la recherche la ak créativité that's it that's all c'est vrai waaw waaw waaw euh, bi mu ñëwee j'étais là et euh, le but c'était de de de donner un coup de pouce et de faire du support parce que dama waroon dem États-Unis donc comme Cheikh Anta Ndiaye Mbaye Sy les gens étaient là et Amady Badiane ñoo nekkoon et sa a vraiment fait plaisir donc l'objectif c'était de rassembler les gens Fessal Sall bi mu nekk une soirée réussite pour un artiste sénégalais c'est vrai que je suis pas monté sur scène mais c'était pas ça le but j'étais là et c'est ce qui comptait mais il a beaucoup apprécier parce que bi show bi jeexee il est venu me voir ndeysaan jox ma accolade ne ma grand merci si ñëw bi donc shout out to my brother joobal gën a liggéey rek lépp dina nice incha allah jaajëf fils